moo tax kilifa politique doo nangu ñu lay dugal ci yooyu nga dem naan may contrôler ñaata kilo ceeb la ñu joxe ñaata litre diwlin la ñu joxe loolu du du rôlu kilifa politique ñàkk wekk mooy tax ñu naan kilifa politique ñëwal di compter peppu ceeb yi application boobu dafa war a ànd ak transparence mooy mbir mi jaar yoon leer parce que xaalisu askan wi la te dërëm gu ne war nañu xam fan la dugg fifteen gu ne war nañu xam fan la dugg te yooyu yëpp naa ci dellu si transparence boobu it dafa war a ànd ak communication bi wax ak askan wi di wax ak askan wi ci mbir mi ci dimension yépp nag muy dimension sociale muy dimension sanitaire muy dimension économique bi dafa war a ànd it ak évaluation mooy xayma soo jëlee ay décision ne fii laa bëgg a jëm balaa ngay dox dox ba si yàgg nga ne changé na xanaa di nga xayma ba ne ah décision yi ma jëloon lii moo ci baaxul lii moo ci baax ba tax ma war a ba changé waaye xëy rek ne changé naa à 380 degré te kenn évalué wul li nga jotoon a def problème am na. évaluation boobu nag moo mën a andi enfin li ñuy wax réajustement mooy defaraat mooy. Euh, xoolaat nuñ koy rectifier lii nag introduction la woon pour ñu gën a xam la may wax lu mu doon lii dañ koo defut safaan wala ñu def moo tax mu àndi ñu fii ñu nekk nii ole ñu def loolu li ci njëkk mooy dañoo def li tubaab di wax sël mooy dañoo xëy génne seen décision def seen répartition li war a dem ci ceeb li war a dem ci diwlin li war a dem ci ay garab ak leneen ak leneen amul kenn kuñ ci waxtaana ñu ne déete ki waaye ñu passé seeni i commande ci anam yoo xam ne kenn xamul passé seeni i commande li ci gën a yéeme mooy gannaaw bu mu jëlee moom Macky Sall décision te waxtaanu cee kenn moo tax li ma doon waxtaan ak ñenn ci sama euh, mbokk opposition bi dama leen lu luñ la consulté wul ca bañ koy nas nuñ la nuñ la ciy boole ca bañ koy exécuté loolu dafa jaarul gannaaw ba mu ko defee dafa dem tànn benn ministre nga xam ne li ñu doon tooñee ay Karim Wade naan ministère ministère de la terre du ciel et cetera. léegi nag dañ daan ministère du riz de l'huile euh, des pistes rurales et cetera dajaleeg cinquante ministères teg ci loxoom ndax mooy dauphin ba moom lañuy xàllal ñu jël mbir ma teg ci loxoom ndax seen conception ñoom ci mbir mi ak ni ñu gisee sénégalais ak rapport politique bi ñu bëgg a am ak sénégalais mooy sénégalais ki koy indi ceeb beeg diwlin bi kooku lay weg la bëgg mooy ñu ne Mansour Faye moo indi ceeb bi moo indi diwlin bi moo andi suukar bi moo ñu jox ci loo xam ne alalu réew mi la loolu naa ci dellu ndax sénégalais il faut ñu xam ni nag la ci kanam dina métti de ñu jël ko jox ko mu wëlbatiku def ay commandam dans une opacité total xam nga problème mu suñu homme politique yi mooy rapport bu ñu am lu bëri ci ñoom bokk ma bañ a généraliser ndax ca laa bokk rapport bu ñu am ak pouvoir ñoom rapport de jouissance la moo tax duñu ñu mus a wax nguur la ñuy wax nguur nguuru mooy suñ ma falee dama war a noos rek suñu homme politique yi ñu ci bëri ci ñoom bokk ñooy xeet goo xam ne ku ju doon sukuraat ci lalam sax. ñu ne ko alalu réew maa ngi ne di rom dina jóg comp ci wàllam doog a ñëw de continuer sukuraatam moo tax la waroon def mooy au ñu def ay transfert transfert d'argent nga xam ne laajul louer camion laajul euh, euh, laajul louer camion laajul commander ceeb laajul commander diwlin laajul commandé suukar te ak foo ko munti nattee moo ëpp njëriñ benn moo ëpp sutura ndax dem ci koñ yi dajale nit ñi ñu ran ñu leen di séddale ay ceeb image yi dafa rafetul sax ci Afrique ci vintu et unième bi ñu nekk amul sutura nit boo koy dimbalee da koy suturaal ñaareel bi mooy ménage yu sénégalais yi bëri na loo xam ne soxla nañ ko lu wuteeg ceeb am na koo xam ne tey nee nañu déplacement bi wàññi nañ ko te moom problème mutation tension la am wala jabet soxla naa mën a jënd garabam nit woo na ma booru Fuuta ne ma ñun ñu joxee ceeb lañ koy dee ñun am nañu ceeb ba noppi ñetteel bi mooy noo noonu nga gën a mën a dugalee xaalis ci économie bi parce que soo defee transfert sénégale bu nekk jot li mu war a jot dem ci boutique koñam wala marché koñam jënd moo gën fuuf parce que économie bi yaa ngi koy dundal ñi yoroon seen stock mën a jaay moo gën nga dem jël sa benn waay fële wala sa ñaari waay dong jox leen ay milliards ñoom kese alors que économie bi mu ngi dox te transfert yomb na réew àdduna yëpp transfert lañu def États-Unis transféré nañu ku nekk 3000 dollars 3000 dollars feneen ak feneen def nañ ko doo gis benn réew bu respecté boppam dajale nit ñi di leen jox ay saaku ceeb bu ko defee caméra tubaab bi ñëw di filmer ñu naan famine à à à au Sénégal ak famine à bërëb sàngam amul sutura. te ñoom amoon nañu fichier ba noppi ndax fichier bi ANSD dafa rek on cinq cent quatre-vingt-huit mille ménages ci koo xam ne yow nee nga un million de ménages nga ngay ciblé bourse de sécurité sociale eh